dafa am lu Sénégal miin ñu koy wax xale walla nga ni gone gone dafa am ndaw am mag am gone nag borom téeméeri at mun na koo doon walla mu doon xale borom téeméeri at mën naa doon gone lu koy def gone mooy ñàkk xam li ko war borom ñetti at du doon xale day doon ndaw motax sahaba saxaaba yi tënkoon yonante bi sallallahu alayhi wasallam dañu won ay gone de te buntaa am na ci ko xamni 18 ans la amone ñu ko don wax usama ibn Zayd bi amé 18 ans la ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam délégué mu jité harb xare dem xare jité délégation bu rëy rëy rëy def ay injazat yu bari ci aduna koku du won xale ndaw la won lako def ndaw moy dafa xamone lim bëgg xam liko ko war te di def xam liko def war te di def nak wessul nek ci lila yàlla digal te bàyyi lim la tere te wutoo ca benn cër bu dul jiboog moom subhanahu wa taala loola kooka mooy tudde ndaw bu defee loola moom ndaw googu nag bu demee ba yegg ci 40 ans nag nekkutu ndaw mag la léegi lu muy gën a dem di gën a mage rek temps bi nag waxtu bi mu defoon bi mu xësee ba majeur ba moskallaf maanaam am kawaru poqataan wala kawaru naq wala mu am xet yenn ci borom xam-xam yi ko niñ ko jàngale kooka li war baayam ak ndeyam moo war dafay war di julli di woor commencé jàng alquran xale bi kon ñun war nañu xam bala muy judd sama man baay ji encore ak ak ji war li ñuy njëkk a xalaat jangga kañ lay tàmbalee alquran ak ci ban diir la koy ak fan moo ko fan lay jànge ak kan moo koy jàngal ab jullit loolu la war a njëkk a tracé ci njabootam bala muy judd laa wax de bu dee ñun Afrique nag gone gi day juddi may laajte ñu naan waaw koo koy tuddee ma naan ma demaay maa xalaat ba mu judd de ba bisu ngénte bi war a dellu xamagul ku muy tuddee xale bi loolu moom mooy préparé wuñ ci moom dara koo xamagul noo koy tuddee te juddu na ça veut dire que kooku waajaloo ci moom dara day dem ba am 40 ans ñu naan xale bi rek moo tax du mujj fenn yooyu ndaw ñi war nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ñi raw ci àdduna yépp li ñuy def ci seen ndaw lañ ko defee ci seen at yu néew nit mënul dem ba am ñeent fukki at di doog a tàmbali na day def dara mënta nekk xam looy gis projet bu mu tàmbali bala muy aboutir mu dee ba ko fi mu tas bu doom bi ñëwee tàmbaliwaat leneen dem ba bala muy jeex ñu dee ñeneen ñëwaat dañuy tàmbali rek ñun dañuy tàmbali di tàmbali di tàmbali di tàmbali kañ la ñuy tàmbali ci waxtu wi ñu war a tàmbalee mooy ci ndaw ci lañuy ñuy mën a gañe temps bu bari nga xam ne bu mbir mu ta bu bu ñuy dee day fekk sax mbir mi taxaw ba am ñaari tànk keneen ku ñëw puus ko mu dem loolu mooy profité ci temps bi boo koy taxawal it doo ko taxawal pour en tant que yow nga don nga jël ko donnuloo ko say doom de nga après ñu am xaalis déedéet da nga koy taxawal pour umma bi pour xeet bi pour jaamu yàlla yi pour diine ji pour Sénégal pour Afrique pour adduna bi pour jullit yi da ngay am gis-gis booba mu doon lu sori nga effacer sa bopp loolu mooy suñ problème moo tax kenn du fi tàmbali lu sotti kenn du fi sumb loo xam ni dina yegg suñ bopp rek jam nañu yàlla musal ci ananiya nag moom la tubaab bi di wax euh, égoïsme feebar booboo ñu sonal gis nga mu ne kon doomu aadama yi noonu la war di dunde mu ne moom mi nga xam ne mooy nit ki dundam bi dafa gàtt lool loolu moo tax nit ñi nga xam ne dañuy dugg safara bu leen yàlla dugalee safara dafa leen dalaan leen kam labistum fi l ardi adada sinin bi ngeen nekkee ci kaw suuf ñaata at ngeen fa def ñu naan ko ah ñun de qaalu labis naa yowman aw baada yow ñun de def nañ fa xam naa benn fan wala xam naa fana genn wàll rek dal di dal di koy estimer noonu ñu ne ko ah bu la neexee kat fas alil aadin laajal ñi nga xam ne ñooy natt bis yi di calculer boo leen laajee dinañ la wax ne def nañ ci àdduna àdduna gis laa de liñ fi dund def nañ benn fan xam naa ak genn wàll mu ne leen in illa qalilan law annakum kuntum taalamun mu ne leen defu leen ci àdduna dul lu tuuti waxtu bu gàtt bu ngeen xamoon loola bu ngeen xamoon ne àdduna waxtu bu gàtt boobu ngeen fay def di ngeen góorgóorlu jéem a muñ coono yi fa ne ak coono yi jaamu yàlla yi ba mucc ci loolu pour mën a dem fële ëllëg maanaam ñun nañ yëg ni kon waxtu yi ñuy def fii am na ñuy dund am chance dund téeméeraat waxtu bu gàtt la coono bi ñu fiy dund nañ ko muñ ci suñu diggante ak suñu borom ci lim ñu tere ñu bàyyi ko lim ñu digal ñi sax di ko def bu ñu ci góorgóorloo tuuti rek jullit gis nga bu imaanam wéree tawxiidam wér والله العظيم دو راغال دي دو راغال دي دو راغال من ديف تي كو سوف داي ديباسي لي ني تودي فيت خم نغ نان فيت فيت افيرو نيت لا واي ليمان بو وير نك دا فا ديباسي فيت موي كو باي اك بوبام يالا كوكو جيني مانو تي مام دارا دو رب دو شيطان دو لن سوني ماك ني غي ديك شال حاج مالي شي عمر الفوتي شي احمد بام شي غورغي عمر ندار سك غيس ني ньоньо لليك نيت ني جي جاوله صاح دي وخ نان ديو دا امون باطن باطن ويسول am cër ci yàlla baatin mooy ku am cër ci yàlla ku jege yàlla subhana taala bu bëggee yàlla bëgg bu bañee yàlla bañ bu kontaanee yàlla kontaan bu meree yàlla mer loolu mooy baatin waaye du la lasaraar yi ñuy tracé di bind ka wékk ka lonk ka sangu déedéet du loolu de ñooñu baatin boobu leen yàlla mayoon moo tax ñu mën a fekk foo xam ni kenn ñamu faa yendu ñu toj ko samp fa di fa doxal zikru di jàngale alquran di yare nit amul pouvoir dama adam amul pouvoir bu wessu wéeru ci yàlla subhanahu wa taala bu wéro ci nit yàlla bako koog nit xol ba xam man na ci mom dara bu ko defé lola ñu góorgóorlu ci bu baax ci yar suñu bop ci defarat suñu tawhid ci wér wétal yàlla subhanahu wa taala mu ne len defu len ci aduna dudul fan yu néew bu ngeen ko xamone di ngeen ko muñ tuuti ñëw fi fexima am teranga mu ne afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun ndax da ngeen yaakaar ne man dem njort ne dama leen bind ci ay caaxaan kon ñi yëg ni kon yàlla unku sax bind ko ci caaxaan unku mi nga xam ne yonent bi nee na boo ko dóoree benn dóor mu dee da ngay am fukki tiyaam yàlla bindul unku ci ay caaxaan waxuma laa ngóot waxuma laa weñ waxuma laa nag doomu aadama nag bi nga xam ni moom la yàlla indi fii tànn ko ci mi mu ñëw nekk fi di caaxaan te yàlla nee na binduma la ci caaxaan بن وقتي تاعهم موي لان موي تان بيم في ديف نكو اورغانيزي